anta fil xayri la bas Souleymane wota kalaani kosko tic tac silence ndax am sénégalais dañoo bëgg musique baax na ok leçon du jour aujourd'hui le match de Sénégal contre Afrique du Sud comment les sénégalais osent de dire que le lait c'est pas le penalty il est le penalty honnêtement il est le penalty le Koulibaly il le font de nous regardez Loussa Kala Bafana Bafana a tic le ballon un sénégalais ici Kara Mbodj d'autres sénégalais euh, Koulibaly et d'autres Sénégalais et d'autres Sénégalais. Comment un lion peut regarder euh, un Bafana Bafana C'est un insulte total. C'est un insulte total. Nous baillons Lorsque le Bafana Bafana articule le ballon, il avance, le Sénégal recule, il avance, le Sénégalais recule. Lorsque le Bafana Bafana a avancé, le Sénégal oublie son cap Oh Lorsque il oublie le cap au lieu que de cap son cap il oublie son cap Lusikili bi la xàpp nag na la Bofana a atik la balo il dure le centre Lusikili dure le centre au lieu de képp soo xàpp nag nag oh le plus grand plaisir de moi je suis très mal honnêteté <coughs> eh, je continue dégg nga la Bofana Bofana tik la balo avant qu'il tëgg la centre au lieu de képp soo xàpp nag nag il ŋaayi soo xàpp nag nag Lusikili ŋaayi la xàpp nag nag un Bofana Bofana tëgg la centre oh comment Koulibaly est si idiot Koulibaly au lieu de képp soo xam ne la ŋaayi na soo xam ne la à la baal naa ko il ŋaayi waat soo xam ne nag baal naa waaye losu kil ŋaa kil wubbi soo xam ne nag ça me fait mal lépp ba wane ba wane ah dëgg la centre lu sa kii dëgg la centre rek la la la Koulibaly la comment le Koulibaly il nous faut tout de nous quoi les Sénégalais le Koulibaly il nous faut tout de nous comment le Koulibaly ba jaawalee la la la la la ballon tu penses la ballon est roo rek comment boolu ceeb nga foog ne noonu lay ah? après nga nga nga nga nga nga tibb nga tibbuwaat si kii tëgg baat bi oh, oh, bàyyi force arbitre kii carte rouge lañ lay jox mise en jour direct voilà kon leçon du jour aujourd'hui nous vous interdisons dans le système international vers national un sénégalais ou un jour na ngay jamais soo kàpp ndëndëm au lieu de ubbi soo xàpp ndëg ndëg siti ŋaayi soo xàpp ndëg ndëg uti ubbi soo xàpp ndëg ndëg carte rouge direct la mise jour lorsque boo ko defee nee na dañ lay alamaan xaalis bu bëri merci beaucoup